jëw ñi nga xam ne day mel ni kàddoom matale na yoon nee day mel ni kàddoom matale na yoonu murid yépp muy Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Jëm bàyyi ci waaj nag mu bàyyi ko ca jëriñu Serigne ci waaj nag Cheikh Mouhamadou Mountakha nee mu ngi ñaan seen borom mu yàggal suñu dund ci wéral leen jiw yi nga xam ne ñëpp ko nangu li ko def. mu nag jëwriñam nga xam ni lii mu ko def. ndax daa fekkoon ay kilifaam nee ndax daa fekkoon ay kilifaam def ko ko. mu yeesal def ba rek. def ba rek. muy Cheikh Mouhamadou Bassir. muy Cheikh Mouhamadou Bassirou. moom Cheikh Abdou Khadir koy santal rek ñenn ñi di ko wooye Cheikh Bass rek ñenn ñi moo moo yónnee woon moo yónnee woon kàddu gi moo indi woon kàddu wala moo indi woon kàddu gi yàlla ko ci jëwriñu sëriñ di waaj indi nag ci jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall ji waaye mu sotti ko nag ci jëwriñu bi nga xam nga xam ni wax nañ leen wax na leen ba tàyyi ni leen jiital moom mii sëriñ Fallilu moom mii di ak dégg rek ak dégg rek sëriñ Fallou Gallassi la. Hmm. ndax si Assane Fall mi nga xam ne moo fi si Modou yaa ak sëriñ Assane Fall mi nga xam ni ginnaaw sëriñ bi moo mag ñi fi toog ñu jotaay bi maam soo waxee ne mel rek. waaw. waaw ñi ñi fi nekkal sëñ Modou Aminta. ñi fi nekkal sëñ Modou Aminta. ci bii. ci jotaay bii. man xam ngeen li ma doon ci moom. moom kat xam ngeen li mu doon ci sëñ Assane. sëriñ Fall xam xam ngeen li mu doon ci ñun. moo tax ma moo tax mu tudd aw turam noonu yi ma ko yoon yu baaxoo. di wane nag li yoon yu baaxoo. ndax ñii fi daje mooy seen kilifa. ndax ñii fi mooy seen kilifa. may tam may kilifaam. moom kilifa nekk it kilifaam nekk fi nii. moo tax ma jaarale moo tax mu jaarale wax ji ci moom rek. dama leen xamal. nee dañuy xamal ni. jëwriñu Seex Ibra Fall ji. jëwriñu Seex ji di Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Jëmb. jiitalul Serigne Fallilu ci kanamu kilifaam yi. jiitalul Serigne Fallilu ci kanamu kilifaam yi. da koo def. da koo def. muy seen ndaw. muy seen ndaw. di leen waxal. di leen di leen jëfal. di leen jëfal. loolu ku ja ku fer ji nekk. loolu ku fer ji ku ne. war a xëy loolu noonu la ko def. war a xam ni noonu la ko Serigne Cheikh Jëmb defee. waaye foofu seen kanam kat. waaye foofu ko nag teg ci seen kanam de. waaw ñu baax ñëpp a nangu lii mu ko def. baax ñëpp a lii mu ko def. ku sam xel de xalaat rek. ku sam xel de xalaat rek. xam nga li tax sëriñ bi def lii mu def. day mag ñi mu bokkal. daa mag ci ñi mu bokkal. te ñëpp di ay ndaw. te ñëpp di ay ndaw. ku ne war a doxee. ku nekk war a doxi la nga war a dox nag la nga war a dox nag mu di ko teg ci loxoom mu di ko teg ci loxoom mu di ko teg seeni loxo mu di ko teg nag ci seeni loxo loolu leer nañ la loolu leer nañ la kër gu mu fi dem rek nee kër gu mu fi dem rek wax nañ leen ba tàyyi mooy taw kër wax nañ leen ba tàyyi mooy taw kër ga waaye nag waaye nag moo fay mënees na ko ni taalibe bu mag ba sax mënees na ko sax ñu tudde ko ni ko taalibe bu mag ba rek ndax yoon yoon yi moo baaxoo ndax yoon yi moo baaxoo ku mag ci sa kër baay ku ne ku mag ci sa kër baay ku ne ñëpp topp ci ginnaaw ñëpp topp ci sa ginnaaw loolu nag loolu nag mooy jëwriñ ci kër gu ne mooy jëwriñ ci kër bu ne loolu moo dal jëwriñ ji toog loolu moo dal di Falilu di sëriñ Falilu bëgg la jiitu moom bëgg jiitu ñoo diwul kilifteef ñoo diwul kilifteef fii mu ne fii mu ne ay kilifaam ay kilifaam ñoo ko fi teg rek su leen neexoon bu dee xëy su leen neexoon bu dee xëy bu dee am xëy la bu dee am xëy la jant du ko fi jant du ko bu dee ngoona bu asamaan du ko fi sete des koo jiital seen kanam rek. des koo jiital ci seen rek. mu di leen defal di leen waxal. mu di leen defal di leen waxal. kon sëñ Fallou Gala si la loolu moo waral kon sëñ si la noonu nga ko waxee. loolu moo waral. loolu moo waral. kàddu gi ci jiw ji ba kàddu gi demee ci jiwriñu Seex Ibra Faal ji. ba mu joxe kàddu yu gàtt yi mu joxe. ba mu joxe fa kàddu yu gàtt yi mu joxe. te mat sëkk te mat sëkk. mu yabal la ci fii ci moom. bëgg nga wax kàddu boobu. nga wax kàddu boo xam ni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 te bokk na ci kon yi def leen ko ji te bokk na ci kon def leen ko ji def leen ko ji def leen ko ji kenn waru nekk ban di la ko wax kenn wartu nekk ban di la ko wax ni mu def rek ni mu def rek ñëpp a ni war a def ñëpp a ni war a def ndax bokk na ci su su su bi daa amoon ndax bokk na ci bu ci fekk bi daa amoon ki ko deful ki ko deful lu mu wax moroom muritam lu mu wax moroomu muritam jëru koo jàppe jëru koo jàppe ndax du dëgg ca moom ndax du dëgg ca moom de mm-hmm. as goro as goro la mu wax rek yem ca. la mu wax rek yem ca. mënees na koo téyel. mënees na koo téyel. waaye bala foo nangul dëgg nag. waaye bala foo nangul dëgg. da koy jëfe ñu gis. da koy jëfe ñu gis ko. sëñ moom jërul woon muy wax kenn jërul muy wax kenn dara. sëñ bi jërul woon muy wax kenn dara. ndax lan lay waxee moo xamul loo xamul ndax la ngay wax loo xamul lay doon. lan lay wax lan lay wax. day doon loo xamul. day doon loo xamul. te moom waxul laa def te moom waxul laa def ginnaaw daa bëgg def nag ginnaaw daa bëgg ñu def nag su doon wax ak ñun dina metti su doon wax ak ñun dina metti ndax dina am ñoo xam ne duñ xam la muy waxee ndax dina am ñoo xam ne duñ xam la muy waxee duñ xam fay xam it fa mu far def nag ñu gis muy def leen nii mu ni def leen nii kooku daal ku mu jàngal kooku daal ku mu jàngal war ngaa war ngaa mokkal lan lay lan lay jàng kon ci turu jëw ñu Seex Fall ji kon ci turu jëw ñu Seex Ibrahima Fall ji Seex Ibrahima jaar ci kilifaam yëpp jaar ci kilifaam yëpp nga xam moom defal boppam ndaw lu mag nga xam ni moom defal boppam ndaw lu mag as ndaw rek la def boppam as ndaw rek la def boppam ci seen biir ci seen biir di wax di def di wax di def ci kaw seen ndigal nag ci kaw seen ndigal nag moo jot kaddu yii moo jotali kaddu yii bàyyi ko ci Sëriñ Tuubaa bàyyi ko ci Sëriñ Tuubaa jaar ci jëwriñam jaar ci ja Cheikh Bassirou ñëw ci jëwriñu Seex Ibra Faal ñu soog koo teg ci ay ñu fab koo teg ci ay loxoom nag muy joxe baatum ndigal ba xam ne muy joxe baatum ndigal boobu yi nga xam ni jëwriñam jooju di kàddoom di lépp jëwriñam jooju di kàddoom di lépp di Seex Basiru Mbàkke moom Seex Abdou Xaadir na ko ba mu leer nañ mu def nag ñu gis mu def nag ñu gis dolli ñu ca nag dolli ñu mu bëgg ku ñëw ci bisu Sëriñ Tuubaa bi mu bëgg ku ci bisu Sëriñ Tuubaa bi na ko ñëpp waajal na ko ñëpp waajal kenn ku ne. kenn ku nekk. melokaan woowu nga xam ne melokaan woowu nga xam ni. lislaam nangu na ko. lislaam na ko de. ñooñ lislaam nangu nan ko. ñooñ lislaam nangul mooy lislaam nangu na. na. bu jàngoro dajee am réew. bu jàngoro dajee am réew. na ñëpp maase. na ñëpp maase. ci di ko fagaru. ba noppi nag. ba noppi nag. boole yaar yii. boole yaar yii. jëf. jëf. ak jaamu. ndax bu liggéeyatul. ndax bu liggéeyatul. jaamuwul jaamuwul. te loola dal. te loola dal. te muy tuddoo lislaam. te muy tuddoo lislaam. kooku mën naa génn àdduna ci bis ba. kooku mën naa génn àdduna ci bis ba. lislaam da ngay boole jaamu ak jëf kat. lislaam da ak jëf. lu jàngoro ji rëy rëy. lu jàngoro ji rëy rëy. te di ko moytu nag. te di ko moytu nag. loolu loolu lislaam na ko. loolu ko. kon nag bi mu doonee ndigal sëñ Tuubaa nag kon nag bi mu doonee ndigalul borom Tuubaa te te dana jaar ci kër yëpp nag te dana jaar ci kër yëpp nag waaye dafa agsi ci kër nag ci kër Cheikh Rafal di lu ne lu sëriñ Tuubaa di digle lu ne Cheikh Ibrahima jiitu ca loolaa daan am ndaka jekk nag ndax jëfe ndigal moom des ci roy Cheikh des waaye royu ci kenn royu ci kenn kon bi sëriñ bi defee lii rek kon bi defee lii rek képp doyoon na. képp doyoon na. waaye wut ndaw nag. waaye wut ndaw nag. yabal ko ci jëriñu Cheikh Fall ji. ni ko wax ko njabootu Cheikh Fall gépp. ni loolu bu doon am njaay la. loolu la. mooy ndollan. taral la mooy ndollan. loo jënd ba noppi. loo jënd ba noppi. ñu tegal la ca dara. ndax leer nañ. ndax leer na nañ de. kon nag kuy maal ku nekk. kon nag sëñ bi nee na kuy ñëw ci màggal ku ne. noonu sëriñ Tuubaa digle. te def ko. na ni mel. na ni mel. na nga wut am masque takk ko. ba noppi do gàdduwaat sax nag. ba noppi nag gàdduwaat sax nag. ndax masque moom. ndax masque moom. benn mënu ci sax mënu ci sax. benn mënu ci kaa sax. yor benn. da nga yor benn. bu tilimee. bu tilimee. nga fóot ba mu set. nga fóot ba mu set. sol sol yor ba ca des. yor ba ca des. su boobu tilimee. su boobu tilimee. fekk fóotoon nga. fekk fóotoon nga. loolu leer nañ. loolu leer na nañ. te boole ci nag. te boole ci nag. raxasu mi nga xam ni. raxasu nga xam ni. lislaam nangu na sell. lislaam nangu na ak sell. ndax laab moom. ndax laab moom. mooy genn wàllu diine. mooy genn wàllu diine. diine di lislaam. ndax diine moom. ndax moom. karate na ngi fi. karate na ngi fi. yi la yaa ngi fi. yi yéefar yaa ngi fi. li ñu wax mooy diine moom yaatu. li ñu bëgg wax mooy diine moom yaatu na. waaye ju sell waaye ju sell ji nag. mooy lislaam mooy lislaam. laaba ji. laab moo ci jiitu nag moom. kon raxas suba set bi ci moom. soo a jëfandiku. kun ko waxul itam war ngaa xam ne loolu cërub lislaam la boo déggagul yow boo déggagul yow wala boo xamagul wala boo xamagul waaye muy tuddoo lislaam waaye yow muy tuddoo lislaam yaa war a jàng loolu yaa war a jàng loolu te di ko jàng te di ko jàng de kon kaddu yi kon kaddu yi guddee su guddee jërul guddal jërul guddal su gàttee jërul woon a guddal jërul woon a guddal ndax ki digle ndax ki digle la mu digle la mu digle def na ko loolu gën a gaaw nag jàng loolu gën a gaaw nag jàng ko li ma bëgg nga def ko li ma bëgg nga def ko nii la koy defee nii lañ koy defee foofu des mën a yem kon sëriñ baa ngi jotali kaddu yooyu kon sëriñ baa ngi jotali kaddu yooyu takk masque raxasu ci saabu ba set wicc ci saabu ba set wicc yor ndox mu ñuy wax Selma. yor ndox moomu ñuy wax Selma. moom mu sell daal mu sell. moom daal li li bëgg a wax daal li mu bëgg a mooy lii rek. li jull moom. mu ci jull mooy kii. li sëñ bi jund. li sëñ bi jund. lépp ko mu daan ko mu daan wax. ci ndigalu tey ci ndigalu tey lii ndax da koo digle woon démb ndax da koo digle woon démb ñu jàng ko mokkal ñu jàng ko ba mokkal ko ñu digalaat ñu ko tey ko tey jii kon jàngal ñu ko dana yomb kon jàngal ñu ko dina yomb kon ndigal làngoo kon fi bi nee na ndigal làngoo ci turu jëw ñu Seex Ibrahima Fall ji mu jaar ci jëwriñam ji nga xam ni dafa ne ci roni kilifaam rek moom dafa ne ci roni kilifaam rek buñ waxee mu def buñ waxee mu def buñ jëfloo mu jëf buñ mu jëf donc la la la nekk ci seen kanam kenn jiitalu ko seen kanam kenn jiitalu ko seen kanam de des koy defloo rek des ñëpp ne ci kanam waaye ñoom ñëpp kon Serigne Fallou Gala Sylla kon Serigne Fallou Gala Sylla Serigne Fallou mi ñuy toog ñii toog ñii toog ñun ñun bokkal yoon yi ñëpp. ñoo fi bokk nekkal ñun bokkal yoon yi ñëpp. waaw ku seer faal di sa maam rek. waaw ku seer faal di sa maam rek. ñii toog ñii toog. xàmmee nan la xàmmee nan la. xàmmee nga leen xàmmee jotaay bii nee na jotaay bii ñoo la fi wóotu ñoo la fi ndax ku ci nekk ndax ku ci nekk la nga nekk la nga nekk moo ca daana nekk ba nga ca laataane laaj nga nga ndigal ba sa ba sa sa kilifa ba am ko ci sa kilifa kon bii boo fekkul jotaay bii la nga nekk la nga nekk ndigal la ndigal la mu ndigalu jotaay bi lii muy ndigalu jotaay bii ni ndigalu jotaay ni ndigalu jotaay bii amee yooyu kaddu daal yooyu kaddu daal bokk na ci si bëggoon bokk na ci yi ñu bëggoon ñu boole ko ci wax ñu boole ko ci wax ji bu doyee nag ñu yem ci. bu doyee nag sëriñ bi ñu yem ci. bu doyul itam. bu doyul itam ñu wax lu ñu ci war a doon ñu wax lu ñu ci war a doon ñu dal ko ci. suñ fa li neen di nga ndànk baax na. lii loolu la mu fay ko jëriñ. waaw ah, ne Cheikh Fallou nee na kuy ñëw na nga ko indaale ñun ñi fi nekk di teeru gan yi nan ñu ci fekk rek. waaw ndigal laa ko foo jëm ko yóbbaale. murit ndigal. jàmm fooy nekk tàll sa loxo réew mi ak bitim réew. yàlla na saa war a bett ñëpp ay xéwal.